ay jafe-jafe loolu lijjanti mu të boo jokkook moom sa jàngoro dina saafaraw góor gu tëli moo ci ay jabet tension mi nga xamante ni moo sonal Sénégalais yi ah loolu ci fukki fan lan la koy ñaanal yow mi nga xamante ni danga yàgg bitim réew lool bëgg ñëw mënoo ñëw ndax jafe-jafe kayit soxna Nafi Gueye loolu foram la taalibi Serigne Babacar Sy. nuyu nañ la. ginnaaw ginnaaw bi ngeen bi ngeen jógee seen huitième de finale bi dellu si fi nga xam ne mooy Sénégal sénégalais yi accueillir leen tey ku ne dellu sa famille tey ñu ñëw fii accueillir leen nga ñëw sa kër ñëpp accueillir sa tey lan nga ciy wax. ah mais dañuy sant yàlla mënoon na mënoon na bañ mais dañ ciy sant yàlla bu wér parce gis naa seen taxawaay euh, durant campagne bi yëpp hmm, nekk woon lu lu lu yomb mais euh, dafa doon loo xam ne dañ ko bëggoon def depuis le début donc tey yàlla. yàlla defal nañu si ndam nit ñi chaque fois ñu fi ñëw fees nañ fi dell voilà pour euh, profiter euh, ci ci ci coupe du monde bi donc euh, benn événement boo xam ne bëggoon nañ ko def la ak école de bi ak taalibe yi ak ñëpp daal ñoo xam ne ñu ngi fi donc dañuy sant yàlla dañuy sant yàlla. initiative bi ko préparé ba excité yaa ngi nekkoon Qatar di préparé li nga xam ne mooy saison bi yéen na initiative bon mun naa xam ne sama sama. sama sama frère ak jabaram ñoom ñoo ñoom ñoo def lépp daanaka ne euh, ak am lii ak euh, voilà am na ñoo xam ne ñoom ñoo nekkoon fii donc donc gérer parce que am na loo xam ne yow sa liggéey si terrain bi la donc leneen li ñoom ñoo koy gérer mais chaque fois ñu ngi doon coordonné voilà jéem a jàpp pour euh, pour la réussite euh, de de ce projet et voilà pour le pour le peuple sénégalais tamit parce que je pense que ni lii il la fallait daal il la fallait profité pour gars yi profité tamit ñëw partage bi moment yi xam nga xol yi nekk benn ñu ñu seetaan lépp projet bi accompagner accompagner jeunes yi surtout accompagner euh, taalibe yi tamit yi yi nekk fii e voilà ak Old Fith bi surtout parce que gis naa seen seen taxawaay aussi am nga donc euh, ñun daal lépp lu ñu mun def pour. Euh, pour gox bi jëm kanam pour Sénégal jëm kanam dinañ ci dinañ kanam te ñu ngi taxaw. mais dafa am da toog huitième de finale ngeen andi fi xaalis xaalis boobu tey mu nekk benn coow boo xam ci wax sénégalais yi naan waroo ci xaalis bi a jot ñi duñ ci jot yéen tey xaalis boobu ngeen ci jotee lan ngeen ci préparé bi nga xam def li nga xam ne mooy sénégalais yi nekkoon seen ginnaaw ak am di jom de de xaalis ak yooyu du ma du ma ci wax parce que man sama li ma gën a soxal mooy mooy donc loolu moom gën a soxal donc loolu opinion du public loolu kenn mënu si dara nañ wax mais man li ma gën a soxal mooy football loolu laa xam depuis xale te loolu laay def donc euh, nañu wax ci football te ñu bàyyi yéen waaw bëri na mais am na ku ma faawoon moom du def di wax faamaara du def di wax donc. Euh, am na benn vision boo xam ne am na ko depuis xale donc euh, ci tangente boobu la nekk e voilà maa ngi siy jéem a góorgóorlu ak euh, ñi may accompagner ak sama équipe donc euh, ñu ngi ciy jéem a taxaw bu waaw waaw lépp na ne parce que tey je pense que ne am na joueurs yu bëri yoo xam ne tey am nañ ay projet ñu ngi créer emploi pour pour les jeunes e tey je pense que ne loo xam ne sénégalais jox nañ jox nañu ko war nañ leen ko delloo donc. sur ce c'est vrai que ni ñu nekk ci football mais en dehors dinañ am équipe yoo xam ne chaque fois dinañ ñu won yoon bi di jéem a xelal ci projet yoo xam ne bëgg nañ ko def te ñu ngi si jàppale donc euh, ñun tamit dañ jéem a def la maximum pour delloo Sénégalais yi loo xam ne tey ñoom jox nañu ko. ah waaw bu baax parce que euh, mbiru yàlla kenn xamul. donc man fii ci fi ñu teene fii ñu nekk nii lépp fii la fii la fii la commencé donc euh, ay mbiru yàlla kenn xamul que mu nekk école de foot que mu nekk feneen ak feneen même gis gis nañ fi gis nañ fi joueur taalibe donc kenn xamul daal donc euh, ñun lépp lu ñu mun def pour euh, développement du Sénégal dañ ko def lépp lu ñu mun def dinañ ko dinañ ko def incha allah donc mooy li ma wax rek delloo Sénégalais yi loo xam ne tey ñoom taxawu taxaw taxaw taxawee nañu ko.

gis nañ feebar bi Sénégal supporters yi vraiment ñun loolu daf ñuy ñun loolu daf ñuy bëggal daf après nag yàlla mooy dogal mais ñun le plus important tey gisoon nañ message boo xam ne euh, sénégalais yi ñu ngi ñu ñu ko doon wan te ñun loolu bu la yokkul jom je pense que ne du la wàññi euh, donc loolu kese la daal. kon ñu xanaa ne club bu ah, na ne lépp mën na ne parce tey je pense que ne football moom da jéem a ñaan yàlla di évoluer uh-huh. te depuis boobu ba léegi yàlla mu ñu si defal xéwal mu si defal ndam donc euh, lu gën a liggéey xam nga gën a gën a fas jom parce que man lépp lu ma lu ma mënti def man Sénégal moo ma moo ma soxal du leneen Sénégal da du leneen. Euh, dañ lay xam ne defal ko Sénégal et tout fi nga commencé fi nga dooree lan nga ñu mën a wax tuuti euh, ci ni ngeen dundee coupe du monde bi ak victoire u Maroc tey jile ak lan nga ñu mën a wax tuuti ci pati pati pati. <laughs> Euh, wax nga nit boo xam ne wax dëgg fa ne yàlla dafa sori sama xol parce que du ma si du ma si bëgg wax parce que chaque fois day nekk loo xam ne dafa diis si man parce que lépp daanaka fii la dooree ndax moom fii la woon fi daan 6 heures du matin bu jot dégguma non dafa sori dafa dafa sori ci man dafa ci man parce que dafa nit dafa nekk nit boo xam ne dafa ma yàgg taxawu ci lépp te du man kese du man kese ñun ñëpp fii ci ci ci gox bi la ñun ñëpp fii ci gox bi la donc aw ma kooku aw ma fayam te bëggoon naa li yëpp mu fekkee ko mais damay sant yàlla parce que yàlla tamit lu mu def loolu moo gën mais wax dëgg fa ne yàlla kooku mënu ma ko mënu ma ko gërëm mënu ma ko mënu ma ko fay mënu ma ko fay mënu ma ko fay mënu ma ko fay. mais sant yàlla euh, waaw doon na loo xam ne mbégte la mbégte la pour Afrique bi parce que c'est c'est une première benn équipe africaine euh, qualifiée euh, qualifiée ci demi-finale yi. <laughs> qualifié. continue rek la victoire du Maroc. waaw waaw doon loo xam ne doon loo xam ne c'est une première pour l'Afrique donc euh, loolu dañ ci sant si kanam am nañu équipe bu baax te vraiment ñoom ñu ngi représenté Afrique dañ li dañ leen di gën a félicité di leen gën a ñaax pour ñu góorgóorlu parce que mën nañ def dara mën nañ def dara mën nañ def dara mais yàlla baax na en tout cas merci pour tout je remercie di remercier ñëpp ñoo xam ne teew nañ fii parce que mënuma lim di ko remercier sama frère yi ñi si jàpp école de foot taalibe yi ñëpp ñëpp ñëpp amul kenn kenn kenn kenn koo xam ne fàtte naa ko di remercier waa Yoof ñëpp borom asiko yi ñëpp ci kaw ba suuf ban yeeg lébo ñëpp amul kenn koo xam ne daal waa Sacré Cœur ñëpp ñëpp ñëpp vraiment Sénégal yëpp jërëjëf waay maa ngi sant leen gërëm